njëkkam ci mbooleem goxi suuf goxi asamaan yi mooy buur bi nga xam ne moo tasaare bëpp bëpp jéemaageem ci mbooleem ay waxtoom ak i jamonoom noonu koy ñaan mu jottali ak julli ak sëlmal jottali ay njëkk ak i teraanga muhammad moom mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu ubbi ubbee ci moom bunti yërmaande taxeeg aw xetam mooy jaamu yàlla bi nga xam ne moo ñu indil xéewalu shariatu nabi ci mboolem way jege yi ak way sori yi yàlla julli ak salma nekk ci sayiduna muhammad moo ki ñoñom ñi nga xam ne ay way ràññiku lañ ak i ñi nga xam ne ay way kawe lañ julli ak salma goo xam ne dafay jokkaloo di toftaloo ñi nga xam ne ni la guddi yi ak bëccëg yi di jokkaloo ko toftaloo mbokk yi ñu ngi ubbee suñuy kàddu ci dal rekk di waxati inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci xew xew jamono yi nga xam ne suñu borom dana ko faral di nattoo ay jàmmam mbokk yi bu ñu seetloo fan yii marché bii di marché Ocass am na sawara sa su fa boy ba boyal fa ay alal yu bare bari ña nga xam ne ñoo ci am ay alal ñëpp ñu leen di masawu ñaan yàlla li mu leen xañ mu defal leen ko muy aw yiw mu defal leen ko ci seen téere jëf waaye moom mi nga xam ne dara tawu ko it yàlla leen wóotalal lu gën li mu leen xañ te lan leen wutale bu dafa wutale bu sax waaye noonu it la ñuy ñaanale ñaari ay bis yi mbokk yi nga xam ne faatu nañ ci ay accident ndax mbokk yi réew mi daanaka xëy bis te déggoo fi sawara si tàkk mbaa bakkan yu rot ci kaw yoon yi néew na lool moo tax li ma daa faral di wax rek war nañoo tuub de war nañoo te dellu suñu borom te xam ne nag mbir yi lu ci bari dara génn ci suñuy jëf ak suñuy melo ak suñuy jikko war ko yëpp bu baax te dellu ci yàlla mboolem ñu faatu ci accident yëpp yàlla yàlla yërëm leen ñi ci amee ay gaañu a yàlla yàlla fëgg seeni bokk ñu ngi leen di jàll ñoom ñëpp seeni bokk mbokk yi damaa bëgg yëkkati ñett ñetti kàddu genn kàddu gi kàddu seere la ñaari kàddu yi ci des kàddu yi laa biire lay doon incha allah mbokk yi kàddu seer gi dañ koy jëmale ci Seex Muntaqa al Bachir xalifatul am li tarikatul murida ndax mbokk yi fan yii dégg nañ këram bari ay yëngu-yëngu lool te man nag dama bokk ci ñu nga xam ne seen gis-gis mooy Sëriñ Muntaxa yii ñuy wax muy xewe ci biir këram yellut ci moom bu fekkee ne murid yi fay nañ ko si borom ndax sëriñ Muntaxa mësta leb lu di njëkk ba ñu ko xamee ba nëgë ni mu toog jotaayu soo xarit kon war nañoo góorgóorlu te njëkk loolu mu doon lebal te lebal ko ay waajuram lebal ko ay magam war ci jëm ko ko fay waaye coow lii di xew këram de yellut te ñu bari ci ñi waral coow li ci biir këram mooy am mbooloo moo xam ne dañu koo wër te seen njariñal bopp donc mu bàyyi leen fa nag dañu dimbali sëriñ bi mënee su yàq ak waaye am na ñoo xam ne jóg nañ ngir gàttal ak garab seen njàng bopp rek tax mbokk yi Sëriñ Muntaxa bi mu fi nekk ak ay wéyu juróom kenn ku ci nekk ci ñoom daf laa tarbiya ba am sa ngërëm kàddu yi Cheikh Abdoul Ahad ci moom ci mbaax ñépp dégg nañ Cheikh Abdoul Xaadir noonu Sëriñ Saalix noonu sëriñ Murtada noonu ay bàjjana yi ñu fi nekkandoon nga xam ne ñoom seen way juróom ñoo bokk benn bayit genn kàddu gi la sëriñ Murtada mbokk yi sëriñ Murtada lépp lu wax ju ñaaw di maye ci kaw suuf sëriñ Murtada du ko am ndax sëriñ Murtada làmmiñam lu safar mënu ca génn mbokk yi sëriñ Murtada lépp lu xëccoo di maye ci kaw suuf du ko am ndax sëriñ Murtada du xëccoo lu dul yàlla mbokki sëriñ Muntaxa lépp loo xam ne jëf ju jëf ju jëf ju rafetul moo koy maye sëriñ Muntaxa du am loola ndax sëriñ Muntaxa xamul jëf ju jëf jëf ju safaan sëriñ Muntaxa ku ko xam ci ñett rek nga ko xam te moom la Cheikhul Khadim dénkoon bi yépp ba muy ndaw ba nii mu toll toog jataayu Cheikhul Khadim ku xam si sëriñ Muntaxa ci loolu nga ko xam muy niyatul xayr xawlul xayr ak fexlul xayr yéene yiw ak di wax yëw ak di jëf aw yiw mbokk yi ko xam sëñ Muntaxa ci lii nga ko xam sëñ Muntaxa xolom bi suñ borom daf ko ko gis ay bidet subhanallah lu jafe suñ Muntaxa xamul ay baax rek la xam ci nit mënta gis ay ci doomu aadama loolu la ko yàlla bindee neetul xayr suñ Muntaxa xolom mënu kee dul jiw xawlul xëy suñ taxaal làmmiñu mënu cee wax dul yiw buy wax sax day gàtt ndax li ci xol bi ci mbaax làmmiñu mënu ko génne ak fexlul xëy jëf yiw ku xam suñ muntaxaa ci léegi ko xam mbokk yi jikko ji mu jikkoo loolaa taxoon ay waajuram doy loo ñi fi mujj ci njabootu Seexul Xadim ñëpp biñ génnee àdduna suñ muntaxaa leen taxaw keroog bu Seex Murtadaa génne àdduna sëriñ Saliou yabal ko mu dem taxaw ko ba ba noppi ba mu ñëwee sëriñ Saliou daf ko dénk boppam ne ko nii nga defal suñu murtadaa yi maa ngi lay dénk sama bopp moo fi jigéen nga defal ko boo xam ne nag dem nga ba doomi sëriñ Tuubaa di la joxañ di la dénk boppam ndax doy boo ko doy kooko war nañoo xam ne wax dëgg yàlla li ci biir ak li ci bitti lépp lépp a yem suñ mën taxaa bitteem ak biiram a yem bitti gi weddiwul biir gi biir way juróom yooyu daf leen a liggéeyal tarbiyewu leen ba am seen ngërëm keroog li fi Seex Saalim jugee mi nga xam ne moo fi mujj ci waa kër Seexul Xadim yi bu sëriñ Muntaxa seetaanoo rek la mbay ñaaw waaye moo jug taxaw sëriñ Saalim ba jëbal ko boroomam joxoñ sëñ Mouhamadou Lamine Baara murid yi te booba ñëpp def nañ ko jëwriñ donte ne ay mag ay magam defaguñ ko jëwriñ waaye murit yëpp daf nañ suñ Muntaxa jëwriñ ndax aw doxinam wu rafet ndax jikkoom ji rafet ndax meloom wu rafet moo tax keroog ba taxawoo sëñ Saaliw ba jébal ko boroomam ba nag moom moo joxoñ nit ñi sëñ Mouhamadou Lamine Bara daal di jàll joxe boppam comme exemplaire na ci kaw yoon wi kenn mënatu ta mooy ndigalam ñëpp topp ci ginnaawam jox sëñ Mouhamadou Lamine seen seen seen bopp yow cëre waaye dafa takk la xasaaya topp ci ginnaawam ba jataayu Cheikh Mouhamadou Amine la muy rafet rafet se se sa sa sa Cheikh Mouhamadou ba Cheikh Mouhamadou Mountakha ba defar ba jataay bi jekk ba mu fa jógee mu ci eh, sëriñ Sidi Mokhtar ak moom ba sëriñ Sidi Mokhtar jóge si mu doon toog jataayu Cheikhul Khadim sëriñ Mountakha mës sa xëccoo dara mës sa bu fekkee ne liggéey na Cheikhul Khadim ci taalibeem li mu ko liggéey liggéeyal cheikhul khadim ci ay njabootam lii mu liggéey wërta dem ba toog jataayu cheikhul khadim ñuy indi ay coow ci biir këram diw bëgg na koo gis mënu koo gis ak kilifa ñëw fa jóge daaru moxti jaar fa siyaare sëñ bi génn nit jël téléphone am daal di wax presse di ne leen sëñ diw bi mu fi ñëwee sëñ bi nee na ko waxal diw tudd kilifa ci kilifa politique yi waxal diw ne ko na bàyyi tooñ moo ko njabootam adduna sépp di ko coow biir réew ñëpp biti réew mbokk yi ci loo xam ne Cheikh Mountakha yëgul tinul ñaaw na trop ku ci politique nga politique kuy wut alal nga wut alal waaye nañu bàyyi deru sëñ bi ñu nekk ci di ko yàq sëriñ bi ku jóg ak si ci ak koo mën a doon rek noo mën a mel te dañ ko war a waggar te xam ne li mu yor mbiru Cheikhul Khadim la waaye yow da ngay doon taalibe boo xam ne cofeel ak pas-pas doogu moo la yëkkati nga ñëw bëgg bëgg a gis sëriñ bi mu tëla ticc mën ngaa yenn ci kër ga doo ko teg bët te moo ne moment boobu ñuy téye ñuy téye taalibe yi mënuñoo gis seen sëriñ ña ngay ubbi ca bunti ginnaaw ya ña ngi fay ubbil musiciens yi ñu dafay jaar di siyaare dem ña ngay ubbil mbëri làmb yi ñu jaar di siyaare di dem fecckat yi ak kat yi ñu ngi leen ubbil ñu jaar di siyaare yàqkat yi diine yi sax ñuy ñëw yu ubbi leen ñu jaar ci bunti ginnaaw dugg siyaare génn dem suñu mu taxaa xamu ci kenn waaye nag bu taalibe boo xam ne cofee la ko indi ak pas-pas bu ñëwee nga tëjee ko buntu sëñ bi ni ko mënees koo gis nañu bàyyi nii ñu nekk sëñ sëriñ Muntaxa te jataay mi ñu jëm ko ko couleur ba bu rafet ndax moom de lii ñu ko bëgg a fayee jiwu ko woon kenn dafa lëggeel doomi Seexul Xadim yi lëggeel ay magam ay magam ba ñoom ñëpp gërëm ko kon lii ñu koy ji leblewu ko woon loola nag dama koy dénk soo bopp te di ko dénk njaboot yi nga xam ne ñoo wër ci ak keppaaram ñu xam ne dañoo war a fexe ba sagal ko dañoo war a fexe ba mu am ndam ci jeetaayu Cheikhul Khadim bi bu toll Sëriñ Muntaxa buntam sañu koo tëjal kenn ndax jeetaayu Cheikhul Khadim la toll xàmmewul kenn kenn ku ñëw mu wax ak yow kon nag mbir mi nañ koy rafetal te jekkal ko te ñu dimbale suñu kilifa yi lii xew ci réew mi ñu di leen koy wax dañu leen di dimbale di leen laabire ndax magul juróom-ñetti fukki at boo xam ne xoolul ci télé dégluwutub rajo yii xew ci jamono muy nouvelle si jëfandikoowu ko kooku lu bare bari mën na ko ëmb ci biir jamono waaye nag ñi nga xam ne tolloo nañu ak jamono tey wër sëriñ bi tey xam lii xew war nañ nag wax bu nekk ñuy góor góorlu di dimbale sëriñ bi ndax mbokk yi ku nekk ci réew yilif fa ay million yi nit kooku réew ma waratu caa um kumpa mboolem luy xew ci réew mi daf ko war di xam kàddu gi nag dama koy yëkkati di ko jëmale ci moom sëriñ bi di ko wax de ko réew mi ñu nekk aajo waru ñu sauver ko réew mi ñu nekk aajo waru ñu taxaw ko réew mii ñu nekk aajo waru ñu dimbale ko réew mi réewum kilifteef la askan wi saa suñ jaaxlee dañu naan la ana sëriñ bi lu sëriñ si wax ana lan moo tax ñu wax wax waxaguñ ndax réew mi mbokk yi day réew kilifteef mbokk yi réew mi ñu nekk dafa toll ci kiris boo xam ne képp ko am kàddu di kilifa diine war a ngaa jéem a yëkkati sa kàddu ngir réew mi ñu jëm ko tegaat ci yoon mbokk yi ab réew moo xam ne ña jiite réew ba nekk ca kaw ña ngay tëkku seeni askan naan leen wutal nañ leen ay ngànnaay yu doy li mu policiers yi yokk nañ ko li mu gendarme yi yokk nañ ko ñu ngi leen di xaar askar wi taxaw naan leen ñun nit noppi nañ ngir jaay leen suñu bakkan ñii taxaw naan leen li fi amoon duutu fi am ñii ne bu ngeen defee la ngeen defoon la fi amoon lu ko raw dana fi am mbokk yi gis nga loolu di raam buñ ko kërut ca ñàkk ba la jëm kilifa yi nga xam ne ñoo amee kàddu yi nañ leen di wax li xew bu ma kilifa yi wax nag ñu ne ma kilifa yi kenn waru leen waxloo ah kay waras na leen wax waxloo de dañoo yërif ay mbooloo ci biir réew mi lépp lu xaw dañ ko war di yëg di cee kër seen kàddu mbokk yi sayiduna muhammad moom la yàlla yónni ci ñun daf daa toog ci sahaba ñu tër seeni plan ba noppi kenn ci sahaba yi ka ci gën a siiw di sayiduna omar ibnul xataab cheikhul xadim sayiduna muhammad day wax ba noppi sayidna Umar ibnu Xataab laaj ko ko hada waxyun am ra'yu li nga wax sa boromu la ko déy wala sa xalaatu bopp la bu ne ko hada waxyun bu ko lii sama borom moo ko déy bu ne ko kon de sami'naa dégg te topp rek ndax yàlla kenn du ko contesté waaye saa ko hada ra'yi sama xalaat la sayidna Umar daf koy wax ne ko tey ngaa bàyyi ñu ñu xalaat ba xam bu ñu xalaatee ba noppi léeg-léeg dañuy ñëw sayidna Muhammad tiri xalaatu boppam teg ne jël xalaat Seydina Omar jëfandikoo te moo ne day Seydina Muhammad di ko suñ borom defal ci xam-xam defalu ko benn jàmm li ko defal ci xel mu rëy defalu ko benn jàmm li ko defal ci ñor defalu ko benn jàmm li ko defal ci ñaw ak xam àdduna defalu ko benn jàmm waaye moo ne day danaa tër teg ay stratégie ba noppi saxaaba yi ne kon lii ndax sa xalaat la bu dee sama xalaat la ñu ne nañ xalaat ñu xalaat ba noppi mu tedd xalaatu boppam jëfandikoo xalaatu saxaaba yi mu gën a jub xalaatu boppam te moo ne day la nekk ci moom nekkul ci saxaaba yi li yàlla waajal ci moom waajal yi waaye moo ne day waxtu nekk daf daa bàyyi xalaatu boppam dem jëfandikoo xalaatu ay taalibeem waaw lan moo tax nag ñu ne sëriñ bi kenn warul ne ko na wax aha kay dañ koo war di boo yëgee lu sa lu sa kilifa yëgul demal ci sa kilifa ga nga ne nangam kat mi ngi bëgg am li mooy la xaw loolu rek la da ngaa yëg lu sa kilifa yëgul nga ñëw yëgal kooku li ñuy def loolu rek la kilifa yi nañ leen wax ne réew mi aajo woon ñu yëkkati seen kàddu aajo woon ñu att seen njaboot yi wa in taifataani min almuminina qatatalu fa aslihu baynahuma sa ñaari njaboot ñoo ami jafe-jafe muy ñi jiite réew mi ak seen peuple woo leen ñoom ñëpp nga waxtaan ñoom lépp ñu teg ko ci yoon ndax mbokk yi daanaa ko wax ba tey borom kër du nekk ci biir këram seen ay njabootam yor sawar kër gi lépp di ay sàkket ngay seetaan xale yi ñuy fay sawara ba taal kër ga nga door wuti ndox mooy fay déedéet nangul sawara sa ci seen ndox ba daal kër ga tàkk ndax boo seetaanee ba kër ga tàkk kat bala ngaa wuti ndox mu fay sawara sa mën na laa na laa yàq loo xam ne boo noppee defar ko daal la ba si kon nag nañ fay sawara bi ci réew mbokk yi suñu borom moo ñu gën a xam suñu bopp. moo ne li li xam-xam suñu bopp rek teewul bis bu set nga am aajo sukk ci kanamam tàllal ko say loxo muslu ko ci loo ragal wala nga ñaan ko sa aajo doo bëgg mu fajal lox ko moo ne moom de moo la gën a xam li ci sa xol waaye teewul saa su xëyee fàttali ko sa bopp kon kilifa des ko war di fàttali waru garam loolu dara njaboot yu yëg lu kilifa yëgul la mu ñëw fàttali ko mbokk yi bi ci des muy ñaari kàddu yoo xam ne dama koy tëjee di kàddu laa rek damaa dégg benn communiqué boo xam ne barki démb yàggul dara ministère de l'intérieur def ko daal ne yokk nañ ñaari junni ci ay auxiliaire police ci li fi nekkoon ngir la waajale ko jàmmarloog aw askanam mbokk ku aw askan wóolu fal la jox la seen alal alal ja di ko wute ay ngànnaay di yokk police di yokk gendarmerie la nga ko waroon a doyee mooy aar askan wi yokkal leen seen kaaraange waaye mbokk yi jamono bi ñuy yokk police ak yokk gendarmerie keroog la réew mi ëpp gën a ñàkk sécurité bërki démb ci altine ci la benn imam génn di dox ay soxlaam ñu kidnappé ko mu am ñaari fan yoo xam ne ay mbokk mu ngi koy wër teguñu ko bët wóolowuñ loolu démb ci bëccëg lañ ko fekk ci biiru kanaal ñu seppi ko génne ko fekk ne dañoo dagg bopp muy imaamu jumaa waaw mbokk yi dama yow mi taxaw naan yokk naa ñaari junni police maa ngi jënd ay ngànnaay ko jëndal ngànnaay yi xana du sécuriser askan bi moo ne bis bu set day ñi ngi fekk nit ñi ci seen biir kër di sàcc seen alal di leen rey ci biir kër yi bis bu set nit ñaa ngi génn amee seen alal di dox ci mbedd ñu kar leen nangu seen alal ma ne sécurité bi nga yokk xanaa yokk ko ngir askan bi yor alali askan bi ba nag di yokk sécurité ngir lan wut ngànnaay yoo xam ne bu ëllëgee nga mën a jàmbarloo sa saw askan ñu ragal yàlla gis ngeen ndomba tànk yi ngeen yor doole ji ngeen yor seen borom lay ko jox te doole askan bi la aare leen ko askari bu leen leen ci néewal dool des na tuuti ndombay tànk yi leen seen borom jox daf koy nangu ci seen loxo wallahi mu tuxu dem ci yeneen loxo ngeen nekk fii ci biir réew mi te la ngeen baat yi ngeen doon dégg duut leen ko dégg muy monsieur le ministre ngeen yem ak citoyen yëpp mu des nag layoo bi nga xam ne war ngeen koo layoo seen borom ci seen i biir bànd ndax lii ngeen teg askan ci ay coono di leen ko teg ci ay métti da ngeen dugg ci seen bàmmeel yéen ñëpp kenn ku ci nekk dangay nga wéet sa borom la yokkoog moom mu des nga dekk bis penc taxaw ci kanam yàlla tabaaraka wa taala askan wa ñu la dénkoon nga di leen teg jaay doole di leen teg ay métit ak i tiis da nga taxaw ci kanam yàlla mu la yokkoog yow nañu wàññi néewal doole gi ñuy néewal doole askan te yërëm askan bi ñëpp sonn mbokk yi ñëpp nañuy jaay doole barki démb ci lu yàggu dara ñi muy yónnee kàddu yi benn politicien boo xam ne ma ngi ko waxee ci biir groupe ba ci biir groupe bu whatsapp dañ cey waxtaan mu sama tur la tudd ne moom de li muy wax dëkk gi dëkk li sëñ Mor Mbaye di wax dëkk gi mu dëkk Touba tax waaye bu dëkkul woon Touba ba tey jàpp nañ ko xanaa lii mooy jaay doole wax xanaa kuy jàpp da jàpp kuy tooñ man du ma man sama làmmiñ lu ñaaw di ci génn du ma xas du ma xuloo du ma wax nit ab safaan waaye nag kàddu gii ma rek kàddu ko sayyidina Muhammad la salawaatullahi wa salaamu alayhi fii ma taxaw di wax fa la sayyidina Muhammad daa taxaw ca ca min baram ba ca madinatu munawwara sayyidina Muhammad diiru muy dund mës na nekk ci biiru aw xeetam di seetaan benn buurub àdduna ngay néewal doole saw xeet mu toog di la seetaan mës na kàddu Seydina Muhammad laa yor fii ma taxaw nag buurum adduna bu ma seen ngay néewal doole saw xeet maa ngay teg injustice ci ñoom ma dindi ko injustice bu mbokk yi xam nga man mii di wax di taxaw ci kaw minbar di jàmbatal askan wi seeni coono ñu ne boo nekkutoon tubaab ba tey tëj nañu ndax lan yaa ngi waxal askan yi seeni coono kese ñu ne boo nekkutoon tubaab ba tëj waaw ma ne ba kañ ba kañ te ki te ki ko wax du gone ndax bërki déew doon ab ab député la bërki démb rek ci législative yi la bokkut waaye ñaari législative yi fi jaar yëpp benn bu ci nekk député la assemblée nationale mu ne li mu dëkk Tuubaa moo ko may saas ne kon jàpp nañ ko ndax lan mi ngi jooytu askan wi seen naqar mi ngi jooytu askan wi seen bu ñu tegee nit injustice mu ne li ñuy teg nit jaaruwut ñu ne boo nekkoon Tuubaa ñu jàpp la doole ji ngeen yor di ko néew wala doole seen askan bis lay ñëw mu jeex te da ngeen ko lay seen borom ragal leen yàlla te ngeen xeet bi te ngeen bàyyi fu ngeen toll di xoqatal seenu xel wutal nañ leen ay ngànnaay wutal nañ leen ay arme wut yokk nañ police yi yokk nañ gendarmerie bis dana ñëw danañ dal ci seen kaw askan wi biñu leen doyloo di leen fal ngir ngeen teggi leen seeni coono moo taxoon di wut ay ngànnaay yu ngeen leen di xuppe ak yu ngeen leen di tëkkoo ngir mën a dajee ji ñoom ëllëg taxul woon ñu fal leen ragal leen yàlla téye rek askan bi yaxfirullahu lii wa lakum wa li